salaamaaleykum salaamaaleykum suñu mbokki internet Dakar midi nuyu leen siyaar lañ jox leen seen wàccuwaay di leen bëggee di leen safo saa su ne di dox ci li ngeen bëgg di dab seen bànneex tey nag li ma leen yàgg a wax moom laa leen di waxaat chaque émission ak ndaanaan bi leen di wan chaque émission ak ndaanaan bi ñu leen di présenté tey nag ki ñu leen di présenté kenn la ci doomi réew mi kenn la ci ndaanaan yi ci biir ndaanaan yi muy Fadel Fadel mi nga xamante ne nii artiste la lépp la wante nag Fadel dañ koy bàyyi mu nuyoo présenté wu wax ñu mooy kan après ñu dugg ci waxtaan bi. Fadel waaw Ndongo maa ngi lay siyaar salaamaaleykum ñëpp maa ngi nuyu ñëpp di sama fans yi di si nuyoo sama samay ñaari waajur samay mag sama famille daal sama patron yi may liggéeyal ku ci mel ni waaw ah, ak Ibrahima Ndiaye maa bu baax di nuyu Sénégal yëpp di leen nuyu nongo sama mag bu baax nga di nuyu sa téléspectateur yi di ñu seetaan maa ngi nuyu ñëpp. moo ngi nuyu ñëpp ñu fas yéene xuus dugg ci waxtaan bi Fadel mun nga ñu wax kat mooy Fadel. waaw Fadel de benn ndongo la bu juddoo fii ci Grand Yoff yoroo fi màggee fi defee fi defee lépp nag waaw mais nag fii ay ay 2010 ci laa dem fatig dem jàngi woon ba 2015 ci laa ñu siwaat ba ñu siwaatee nag ci laa ne ma dugg ci aar bi commencé fecc carrément parce que 2000 2000 2003 laa commencé fecc. 2003 nga commencé fecc. waaw 2003 laa commencé fecc ba 2005 ma bàyyi ndax ay wax yu ma doon dégg ak xeex yi ma daan xeex looloo taxoon ma bàyyi continuer sama jàng waa ba 2012 2013 laa commencé waat. commencé tëgg sabar di tëgg di tëgg ba benn ins ma ne xaaral ma demaat ci fecc moom dugalaat ci fecc ba ma adhéré nii ba àdduna yëpp xam ma ci. ah jaar nga ci école jàng nga waa waaw jàng naa jàng naa ba trois heures. jàng ba trois heures. waaw métier tamit métier jàngoo. waaw jàng naa mais def naa peintre peintre oto def naa électricien waaw. léegi ci biir loolu nga commencé fecc 2003 ba benn jamono nga jékki saay arrêté lu waraloon arrêté bi. parce que xam nga rek nga nekk xale di ay jamono ay 2005 nga xale di fecce ñu lay wax kii borom ñaari tur yi la kii góor jigéen ngay xeex ma ne ma ne xaaral nga xam nga temps yooyu moom da ngay la ko waxee nga nekk ak say morom da ngay rayante ndax bañkat ngay nekk te boo nekkee xale tamit esprit boobu mooy ne sa boobu ma ne bàyyi ma sama jàng ci laa nekk sama jàng commencé dugaale ci métier di def peintre. wala ci tamit di dem karaté def naa waaw def naa karaté naa karaté trois ans sax waaw def naa trois ans après ci laa bàyyi tamit karaté dem continuer sama métier di jàngale waaw su ma amee vacances damay dem continuer sama métier peintre oto su ma tëjee ma dem ci laa doon def sama boson yu bëri comme su école tëjee su yooyu laa doon def sama boson yi quoi ba 2010 sama papa yóbbu ma Fatick ma jàngi ma dem Fatick di jàng na fekk fa nag. ëttu géwél sama mm. mbokk yu ne foofu ñoo ma dugalaa si tëgg bi may tëgg sabar di tëggatu di tëgg di tëgg di tëgg di tëgg ba yàlla dafa ma ma am vacance ñëw Dakar gis ñoom isor ñuy répété fecc ma ñëw seetaan affaire bi nekkat sama yaram ma ne xaaral suba ñëw ma wax ko ma ne ko suba dinaa ñëw répété nii laa ñëwee commencé waat moo la jàngal fecc wala dafa am ci jaar mu jàngal. Isdor moo ma jàngal. moo la jàngal nongo ndongo handicapé. moom noonu suma ko wax ak El Hadj Doumbouya. Ah, ñoo ñoo la jàngal ñoo ñoo ma jàngal fii. ñoo ah, ñoo la jàngal su ma la déggee bu baax mooy sa cosaan dëggantaan Fatick la. sama cosaan dëgg Fatick uh-huh. léegi Fatick dama fa am groupe. Fatick waaw am naa fa groupe ku mel ne ñoom Paalo ma leen di message ñoom Paalo ñoom laay seen alaaji ñoom ñëpp barke sëñ Touba ñoom ñëpp ma leen léegi léegi bi nga jógee ci loolu da nga mën a tëgg sabar yow. waaw tëgg naa sabar parce que sama papa tëggkat sabar lool suñu famille yëpp ay tëggkat sabar lañ ki jur sama yaay tëggkat sabar la ki jur sama papa tëggkat sabar la kon ay tëggkat sabar lañ kon man géwél la ah yow léegi da nga boo bette bette laa bette bette xuma man awma benn maamu géer man samay maam yëpp ay géwél la géwél ci nday géwél ci baay sama yaay géwél la sama papa géwél la sama yaay séeréer la sama papa séeréer la ah barke sëñ Tuubaa waaw kon bette bette pire man aw ma géer man sama famille amul géer dara raxul dara raxulu dara ay géer raxulu ñëpp ay géwél lan léegi nga boole tëgg mi ak fecc mi waaw mais ci fecc mi lañ la gën a xam waaw ci fecc mi après nag ci laa kii ma ne bàyyi ma considère euh, kii concentré wu si fecc mi ci laa concentré wu ni ci fecc mi ba nii tey léegi fecc mi bëri na ay wax ñu ne fecc amatul fecc yàqu na parce que xale yi léegi feccatun ci temps xale yi léegi feccatun normal parce que fecc bu njëkkaan compté moo amoon léegi xale yi léegi dañuy rek fecc yow mi nekk ci fecc bi nan nga gisee fecc bi waaw loolu dëgg la fecc bi moom dafa yàqu léegi mais man damaa jaar ci fecc damaa jàng man fecc moom dama koo jàng man yàlla sa sagal na ma ba jàng naa fecc saal yi ngay dégg yëpp genn wàll saal yëpp def naa fecc naa sabar te sabar bu kenn mënu ma see nax fecc naa Oscar kon man jàng naa du léegi jamono yi booy nga xam na yi ñëw rek fecc man damaa kaa jàng na am ay pamoon su ma demee dañ may jël parce que xam naa li ma jàng Fadel nag dañ koy gis muy comédie nga foog ne fecc comédie lay def déedéet Fadel daa mën a fecc avant comédie bi fecc comédie maa ko bu njëkk a def fii fecc def ay gestes ay comédie maa ko bu njëkk a def ba da ngay dem si yeneen fecckat yu mag yi nga laajte leen ndax Fadel mën na fecc. ñoom ñoo lay seen bopp. fecc ñaata paa la. fecc cinq paa la. cinq paa waaw cinq paa ngay lalli sa cinq paa bu matul mënoo fecc doo fecc kat cinq paa nga dolli waay yeneen cinq leneen loo ci dolli bénéfice bu dix paa. loolu comme boo sabaree un deux trois quatre cinq da ngay tegaat beneen un deux trois quatre cinq leneen loo ci dolli bénéfice loolu moon normal. loolu moo normal waaw. léegi ci wàllu fecc mi ba tey dañ fay des gis nañ ay fecckat yu bëri dañuy def seen groupe di tëgg ay soirée di def ay single xam nga di def seen carrière mais yow dañ la gis yow nga ànd ak gars yi ba pare am na ay message yu ma jotoo yu ma jot am na nag ay message yu bëri dinañ ci ñëw ñu ne Fadel amul groupe Fadel kenn xamul fan la féete maanaam mu ngi ci Bastion mu ngi ci Ibro Naajo mu ngi ci Pape Colan mu ngi ci Sabari kenn xamul quoi kenn xamul sa groupe man ban ban féete fan mooy sa féete. àdduna àdduna wër nga këpp xam nañ Fadel fu mu féete man sama benn féete benn féete la am ci àdduna muy Bastion yàq yaay Baba Diagne Mama Tari Mbaye Diagne. bu soxla woon ñëppay ñaax. amul kii amul Samba amul ma demba waaw ah, bas bu ñaax. kenn la ma nit ñi xamee muy Bass Thioung. ci groupe boobu nga fixé. groupe boobu laa fixé carrément àdduna à vie. ci moom ma booleeg Ibra Naajo Bass Thioung su ma boolee Naajo du ma jël Ibra Naajo. ndigal la léegi nag Ibra Naajo ma ñëw fa tam mu def ma comme Bass Thioung ma def moo tax ñoom ñaar rek laa am su Bass di see nag Bass laay ak Naajo ñu bokk jour Bass laay see. naajo am na compréhension boobu bëggee nañ mu ci noonu ñoom it. Mhm. barke sëñ naajo tamit du ku baax. man naajo am na lu ma doon ma wan du ma fa toog mais liñ ma wan ñoom bañ na ko programme bu amee sax su ma toogee tuuti sax day day énervé day bëgg ma ñëw see. kon kooku aw ma fay kon kooku kon ni ma bas def la ma def. moo tax ñoom ñaar rek laa am barke sëñ Touba nekkaatuma nag ci groupe keneen ñaar ñooñu laa ne seen groupe Bass Thioung ak Ibro Naajo. booy bi woy bari bari dégg naa dañ koy dañ koy feccal Pape Thione ah sama xarit la ñoo foowandoo simbandoo defandoo lépp waaw ñu bokk koñ boo amee soirée boo xam ne jeudi ma damay ñëw soirée bi seetaan baal ba su ma xool sedd su ma amee sant fecc fecc ba pare dem ñibbi waaw am nga am nga accès ci yeneen soirée yi à part ñaari artistes soirée ñëpp du ñëpp laay dem man ñëpp laay dem seen soirée man soirée waale geeruma ket non man sama génération maa fi njëkk a yëg seen ñamax-ñamax ah bi siwee Fadel ñamax-ñamax bi ngay dégg soirée waale la. ah ñaata yoon du benn du ñaan tey booy yi def nii su ma newoon bërët soirée waale su ma nee fii laa bëgg a bokk foos damay bokk xam naa li ma fay fek parce que samay papa ñoo fa mais nag yàlla dafa maa jagle ba pare maam fu ma ne ba pare moo tax loolu du ci dee suma ma amee envie nag baali waale dinaa baali nit ñaa ngi baali nag Fadel kañ ngay dem soirée waale dinaa ñëw du léegi. parce que dama ne ci ay liggéeyu jàmbur ku mel ni naajo ku ci mel ni Bassou sama patron dama ne seen liggéey ñoom nag bis bi ma yeewee dinaa ñëw soirée wala dëbb ko ba mu nooy te bu ma ñëwee ñoo xam ne gaynde gi ñëw waaw ba tey ñu ñëwaat ci question yi lan moo tax euh, comme artistes yi ni ñuy def fecckat yi di génn ay single di tëgg soirée yow yow yow doxoo ci domaine yooyu parce que man xam nga rek nit soo nekkee ci leen nekk ci rek man fecc bi la ma nit ñi xamee du tey nag dinaa def soirée dinaa def sama anniversaire bii di ñëw bëgg naa ko def soirée bu mag soirée tànn biir bu mag laa ko bëgg a def invité artistes yëpp ci biir foyer bi laa ko bëgg a defee ci biir foyer bi invité artistes yëpp waaw foyer grand fi ci biir foyer bi mais ni nga toll ci réew mi war nga mën a laal beneen beneen beneen beneen lieu bu gën a bu gën a riis foyer grand grand laa juddoo fii laa yoroo fii laa bi dañ koy doog a na sal bi yaatu na ñun la tax ñuy wàlli yaani te suñu dëkk am sama dëkk am na kay fu ma ko mën a defee sama dëkk laa koy defee sama anniversaire bii di ñëw incha allah bëgg naa ko def incha allah biir foyer Grand Yoff invité artistes yëpp yëpp ñëpp ñëw ku ñëw def ba doyal single it waaw non single moom gisuma man man gisu man day ah pare gu ma ko def single baat mais des fois da ngay taasu non mais damay taasu si ay ay sabar yi des fois ma engagé samay programme bopp ñëw j micro mais single néew ma si expérience bi expérience bi amul pour bind test pour génn single wala wala boobu dafa bokk say projet fi xel yaa fi ndax kuy dem bay conseil ay waykat bu ñu def lii ak lii ak lii kon am naa génne single mais man maa newul ci domaine bi single quoi man bàyyi ma ne ci fecc mi nekk ci programme yi di kii waaw gérer daal man néew ma si single yi mhm. gars yi daal fecckat yi ne single yi yàlla na leen yàlla jàppale single waaw mm-hmm. ndax ñun ñëpp samay fecckat yi ñëpp laa sekkal jàmm ñëpp samay mag lañ ñëpp samay frère lañ ñii samay rakk lañ waaw ñëpp man ñëpp laa sekkal jàmm man amul kenn ku xaar ma yàlla mm-hmm. waaw man loolu laa mel mm-hmm. amul kenn xaar ma yàlla ñëpp la amal jàmm léegi ba tey dañuy xuus rek ci actualité yi nga xamante ne jot na am ci réew mi ci artistes yi yow ban ban ban ban ban ban jàngat nga am sa diggante comme diggante euh, Sidi Diop Wally Euh, Waly euh, Pawlish seen jubóo ban ban ban ban jàngat nga ci parce que àdduna nii la àdduna amul solo soo bis dafay jeex ñun ñëpp dañ fi dañuy dem bàyyi ko fi ëllëg dañuy sàng yóbbuñu si morgue bi. Hmm. sanguñu koo amal xarma yàlla du fa teg tànkam ah. wala bu fa tegee tànkam dafa foo hmm. àdduna nañuy xool luy rafet ñu koy def. Waly amul problème Pawlish amul problème Sidi Diop amul problème kenn amul problème nit ñi si ginnaaw dañ bàyyi di jaxase nit ñi waaw problème amoon na comme jubóon nañ nag mhm. sant yàlla loolu la àdduna yëpp doon ñaan mhm. ba pare Sidi mi mi ngi waaj Zénith na ko Sénégal yëpp jàppale ñu dem may doole loolu laa gis comme Waly tamit mi ngi waaj tamit ay touré moom it dañ doole liggéey mu am doole àdduna lii la rek tey man man moom. ku ma tooñ baal naa la ax man koo xam ne tooñ naa la baal ma ax parce que àdduna fa la bi daa gaaw tay ay dégg dee yi na torop torop des fois ma toog sama lal talal samay tànk ne man téemaa bàyyi lii ma ne parce que aar métti na ba pare lu lañ la si def ngay xeex xuloo dangaa jarul nga xalaat yàlla dafa am dee dafa am bari démb rek daa doon seetaan film xam nga Assane théâtre boobu nga xam ne tuubloo na sénégalais loolu théâtre Assane loolu rek war na yee ñëpp. xalaat des fois sax. yaa illa man YouTube laa yor démb démb jooy naa jooy fu fu kenn xam fekkeewul ba ma seetaanaatee Assane dama delluwaat ci yàlla xam ni nag yàlla rek ay buur juum naa sax ba ne ndeysaan ñu ñu nekkee bàkkaar la te dëgg la lu ñu nekkee bàkkaar la mais jaru muy ñaaw kon dañ ko defar mu nice ñun ñëpp nekk jàmm am jàmm ak salaam dundu nga xam ne ku dee sa morom dina la mën a ñëw texaw teewu la témoin loolu rafet mais tey euh, sama noon bu dee su ma fa taxawee na ko nii barke Serigne Bamba Mbacke du ma nitu dëgg bu yeboo nga ragal ma mais nag tey koo xam ne sama waay la ngay sa waay ngeen sekkoon milieu bi mu génn àdduna am nga droit mu ñëw témoin boo témoin dañuy kii nitu dëgg la dañ bàyyi xel loolu man man moom ba taalibe laa man àdduna yëpp xamee ne taalibe laa man mooy sama deuxième tur man damay damay jàmm sante ñëpp man sama xaalis du ma boole kenn waaw ay damaa tooñ doomu jaambur nag loolu lu paase la am naa doom maa kooku sekkoon nañ dara am nañ doom macha allah am naa ñaari ban waaw ma koy sante baax nag yàlla suñu borom. ki wax ne da nga bañ. non man lan laay bañ koom am ñaari doom dina ko dina ne si eh, grand ne am naa ñaari doom. waaw mais mais amul amul amul koo koo ëmbal ne ne ne bañ ko. ñaar ñi ma doom ñëpp ñaam ñaar ñëpp nangu naa seen doom. waaw Ndiaye lañ sant ñaar ñëpp Ndiaye lañ sant macha allah ñoom ñaar ñëpp. kon kooku daloon yàq der. ñaar ñëpp Ndiaye lañ sant. nee na xale bu jigéen bu mu ëmbal day taxaw ne la carrément ëmbalu. ñaar te yàgg ak jigéen. ñaar jigéen daal laa xam ñaar laa xam te ñoom ñaar ñëpp seen doom yi njaay lañ sant maay seen baay man du ma toog journée sama doom woowu chaque jour samay doom woowu ki nekk fii ak ki nekk fële ñoom ñaar ñëpp dañ may woowu. mos nga tukki dafa neex dafa neex ba samay doom samay doom di ma woo appel vidéo di ma papa dafa neex ñoom ñaar ñëpp samay doom lañ njaay lañ sant bañu ma ci kenn ñaar laa am nag ñaar képp laa am. comme ko defoo ko yow soxna la ah, ñaari soxna yu bokkul. waaw ñaari jigéen la am. waaw ñaari jigéen. mais amagoo jabar. non amaguma soxna mais maay waaj xam naa ñoom ñaar ñoom ñëpp la incha allah naa leen mais nan nga gisee artistes yi nga xam ne dañuy ëmbal di bañ. waaw loolu moom rafetul ndax xangul ndax après sa doom dina màggi ëllëg laajal sa doom màggi ëllëg nekk quelqu'un si dëkk bi nga koy topp mu bañ su muy fooy mujj. waaw léegi ba tey rek ñu ñëwaat ci actualité ku ne xam ne ne réew mi fan yi yëngu na ta ta te ñaara ko yëngal muy ku góor ak ku jigéen kon ba léegi génn guñ fi ñu newoon mooy ñuy dóor jigéen di toroxal jigéen eh. ah, ah, ah, di di waxuma ko di réew mi ko wax maanaam di di def lu ñaaw jigéen di def lu ñaaw lu jigéen te kenn ki dégg nañ ne xale bu góor bi moom sa gaayen la ah muy muy muy muy Mario ak ak ak li li am seen diggante lan nga ci xam ak lan nga ci mën a wax. ah xam naa ne daal lu waaye di wax ci wax jooju. waaw da doon jàmm ndax Mario Mbaye dara safu ko. ah bon ah, kon liñ ko waxal am na. saa yi waxuma li ma wax am na de. dama ne yow yaa ne dara safu ko dama ne. ku ji wax na xam lu wax Mario Mbaye dara safu ko xëy suba dem toogal ndaxte raamal ko lëmbalal ko ay ree la ko ah. lu wax na nga ko xam ndaxte loo. juum na d'accord nañ mais nit bu baax la barki sëñ Touba. juum na ci ban ban ban ban côté la juume. non warul génn wax garaawul. ah waruloon a wax nag ni mu waxee d'accord na parce que xolam moo jeex xolam moo tooy ak ñooñu ñoom tamit ñi ngi laajee question de métti lay jooyloo métti na ñooñu ñu ngi laajee question mari amul problème ndaxte loo ku baax la barki sëñ Touba Mario Mbaye moom daa gën. mais ndaxte nee na moom li mu wax lu am la. ah man de confirmer na ko fépp. xam nga xaw ma ci dara yow tam boo ko waxee xamoo dara ya ëllëg dañuy dem yow ma xiyaam. mais ci moom rek la ñuy basé parce que moom moo wax. ku góor gi wax na. ku góor gi moom waxu kon jeex na nag. comme ku jigéen ki wax na man nag soo bëggee dégg-dëgg. dama sama xol day tooy dafa dafa tooy ndax ba mu waxee jooy naa sax mais nag duma ma gisé parce que xam nga ndax Mario Mbaye xamee wu ma ko loolu te ku baax la barke Sëñ Tuubaa day ñëw soirée teral nu muy nit ku baax. Mario Mbaye day toog cinq minutes woo la téléphone man Mario Mbaye duñ daje day faa dañuy daje sax si mbedd ah ñu taxaw waxtaan mu yëkkati lu ne posam may ma barke sëñ Touba du xaadulu xaalis moo tax mais dafa ma woon geste moo tax may wax moom ah nit ku baax la Baye Fall ba pare rusloo na ndax lu mu def rek dafa nice ku ko woo Mario Mbaye dama bëgg nga wax sa jabar mu ne la kooku sama doom la du ma wax ci moom lu ñaaw loolu kon sénégalais war nañ mën a téye seen gémmiñ te noppi ku ne di wax naan dóor yeeg saaga yeeg jigéen ñi góor ñuy dóor nag nañ bàyyi dóor jigéen baaxul te góor ñi tamit nañ bàyyi weer jigéen ñi góor dégg nga maanaam jigéen ñi man damaa juum damaa tiit ji damaa tiit ah jigéen ñi nañ bàyyi weer amul sens góor ñi bàyyi dóore góor ñi bàyyi dóore ndax ndax waaw yéen ah, ndax yéen ñaar ba ngeen nekk ci néeg ba ku ko fekke fekkewul ba ngay indi sa wargal kenn fekkewu ko ñi ciy wax nañ ci maanu ndaxte loo mooy Mario Mario moy ndaxte loo te ñoom ñaar dañoo am luñ jot a jaar. am luñ jot a dund am luñ jot a dund mm-hmm. kon lu ciy waay wax na doon jàmm man nag loolu laa am lu ma ciy wax de sama programme bi mi ngi commencé te war a dóori. non xaaral du ma la bàyyi ko léegi nañ dem ci Khady Ndiaye. waa Khady Ndiaye lu ci waram man dama bëgg a xam Khady Ndiaye lu ci yoonam ci coow li xam si samay beer. Ah, ah. <laughs> laaj na la ah si kayit caméraman yi ma xam lu mel caméraman yi dañoo dañoo mën a fen ah caméraman yi luñ def yow man maa lay posé question man maay <laughs> man question caméraman bi lu ci yoram ah lii nag lay xam xarit jaay waaw leeral leeralal ñu rek gars yi daal nag li ñuy ñëw soirée yëpp ne ne xarit jaay sama gel la réew koy waxtaane xarit jaay sama gel maa koy jël jeex ah bon maa ngi koy waay takk nii. waaw sénégalais bàyyi lay xel lool Khady Ndiaye dañuy mariage bu ki jàllee incha allah Fadel le mari de Khady Ndiaye. ah waaw léegi ñaari xale yi nga wax na da nga leen di takk na xanaa soxna nga bëgg man may man may góor di jullit am droit am ñeenti jabar ku ci toogut dem. waa léegi xaaral am na question yu laaj artistes yi nag ci wàllu seen diine. benn rek lañ la ci laaj parce que instant bi heure bi jot na yaa ngi war a dem jouer la yaa ngi dégg wax bi li eh, <laughs> xam nga li xam. luy li sax li xam mooy <laughs> nan. ah expliqué ma soo julli julli. waaw balaa nga julli ni nga li xam. ah maa ngay commencé. waaw boobu moom xam naa ko moom. asafula asafula asadu an laa ilaaha ah, di liqaam laa la wax liqaamal normal ah asafula asafula laa ilaaha lu ci topp seydina muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ah loolu lay liqaam ah, <laughs> ko dog <laughs> Fadel yaa na ma yàlla àtte yow laa ilaha illallah lu mel nii nag mënul ñàkk ci réew mi parce que artistes yi soo bi rek lañ topp ñu si bëri dañuy wax ne concentré wuñu seen diine ñii naan artistes yi amuñu diine loolu nag dina leer naa ñi sama diggante ak parce que daanaka bu mu invité dinaa la laaj benn question wala ñaari question sa diine ñi leen di jox dig daje ba beneen yoon incha allahu rabbi ak beneen daanaan nii rek waaw li fi lëndam lépp ñoo koy leeral maa la wax loolu kon